5 tonnes ñu daal di wax ci li nga xamante ni moo di homosexualité gis nañ ne mbirum góor jigéen léegi dafa dafa dafa commencé lëmbe ci réew mi naka nga ko jàpp. na <laughs> de <laughs> ah mais loolu na moom saa boo nit ñu gën a gën a maytu quoi mais dafa xam ne dëgg dafa toll foo xam ne nit ku nit ku ne ak lii la concerné ak ni ngay wutee xaalis quoi mais loolu moom ñun suñu diine bëggu ko waaw suñu waa culture mooy suñu aada quoi waaw suñu aada bëgg ko tamit xam kon tey ñoom nit ko ne xam nga xam dafa am loo xam ne yow soo koy def def ko fi nga ko war a defee rek yow jafe-jafe nga fay am xam nga moom nee ko bi mooy nationalité mooy ko a xam da nga gis dañ koy xaw a jiiñ ñi tuuti rek am na sax benn waaye gars yi jàpp nañ ko xaw koo xam ne dañ ko doon xaw a kii nii géej waay billahi di ko ci dóor dóor yow kon loolu noonu da lay wër ne kon ak sisewul ak sisewul suñum réew kon boo koy def rek teel koo limité quoi nga dem fa mu exigé nga defee ko fa waaw képp ku si bëgg a dugg nag moom say boo nga reculé wu ba set mais góor dafa neex quoi daal waaw nekk li nga doon dafa neex trop waaw. yaakaaroon xëy mu metti mais ak bëgg am alal doo ko liggéey est-ce mooy waral waaw ñàkkum xëy mu metti dëgg la euh, mais tamit xam nga tamit euh, gis nga doomu aadama chaque jour rek yow li nga tollal da ko war a def. man 5 tonnes damay xëy maase bu bee li ma tollool ma lekk ko tëdd sama ngor keneen lim maase lim tollool mu def loolu tëdd ngoram est-ce que ti ko ne comme tey kenn ko li nga xam ne yow moom moom moom moom nga tollool soo ko defee rek jàmm mun na